tey ma owoon sama militant yëpp waxtaan ak ñoom pour ñu préparer wu xam ne combat bi jëm koom du combat bu yomb ñëpp ñëw ñu àndaat nekk benn demaat wàccuwaat ci base bi dem seeti nit ñi waxtaan ak ñoom jaay carte yi ba objectif yi nga xam ne moom la ñu demandé pour ñu atteindre ko te ngéej atteindre ko largement tey boo leen xoolee tey muy mag ñëw na muy jeune ñëw na muy jigéen ñëw na donc kenn desul donc message bi mooy loolu moom mooy donc ñooñu ñëpp àndandoo nekk benn dans l'unité ñu mën a jublu ci liggéey bi jaay carte yi ba tëngeej li nga xam ne moom lañ ko laaj mu am ko ñu aussi dem installé waat comité yi parce que moyens yooyu mooy moyens yi gën a efficace pour animer waat partie bi donc man mi nga xam ne donc nekk jeune fii service ki nekk responsable donc fii ci tëngeej donc ma jël samay responsabilité nous le président de la République pour nous ligue. Si je veux militants aussi, nous avons fait Dans la grande majorité, nous avons que le dans une situation léthargique. Il est temps que nous redynamisions et remobilisions le parti. Par rapport au Sénégal, nous avons demandé au président objectif 1 500 000 cartes. mais yaakaar naa ne Tëngéej rek ñun war nañ mën a vraiment génn loo xamante ne presque lu mët quinze pour cent wala 10 pour cent si li nga xam ne moom lañ laaj ci Sénégal defe naa ne loolu wane nañ ko si échéance yi yu bëri yu fi jaar wane nañ ko aussi. si référendum bi war nañ ko ci élection législative yi jaar war nañ ko ci présidentielle war na Tëngéej fa ñu ñu ngi fa taxaw ba légui di jappalé président mais bëgg aussi président mu déglu avec une oreille attentive les revendications et les doléances donc des quoi wayé nak ci lolu it dañ ci ñaan son excellence le président Macky Sall mu taxawu le jeune Doudou Maïssa Wade mi nga xamante c'est le leader politique c'est le leader politique jeune bi nekk au niveau de l'Est di animer parti bi parce que la jeunesse de Rufisque ñom ñep ils sont derrière Doudou Maïssa Wade comme si lolu si lolu dañu bëgg son excellence le président Macky Sall mu yok ndombal tankam mu am nu nga xamanteni non lay taxawé ak mom taxaway bobu moy boy xol Tëngéej amul ay poste DG amul ay poste de responsabilité yenn yi parce que amu fi DG defe dugagul ni kon ci lolu na ñu koy ñaan di lancer un appel di ko wax ni c'est un appel solennel son euh, le président Macky Sall ñun say wëllëre démb ak barki démb ñoo taxaw di la wax ni dañu bëgg nga may ñu doole parce que néew nañ doole néew nañ doole ci base bi amuñu accès ci financement DER bi amuñu accès ci fonds JIP amuñu accès aussi ci yenn post yi donc ñu ngi lay wax ni sunu leader le jeune may sa wàdd nga dooleel ko